waaw mbokk yi ñoo ngi jël siwaat rek conclure li nga xam ne moom lañ doon wax sànq di amaan mbégte dil siwaat rek parce que yéen laayante yaata ngi seen biir ndax dafay am solo ci addina nit ki lu mu tànnee moroomam rek na ko ko dimbale moo tax yàlla daan wa taxawun alal birri wa taqwa wala taxawun alal ismi wal udwan foofa rek lañ teg suñuy mbir moo tax jamono bu ñu santiree loo xam ne lu jëm ci mbindeef yi la amal leen njariñ amal nu njariñ dañ koy daal di gaaw partagé wu ñun suñu liggéey noonu rek lañ ciy doxee waaye ajjumay tey ji nag am tomb boo xam ne boo am solo la bopp barina na lu gàllankoor nit ki ci dundam ba amatu fi jàmm te saytaane xaptal ko ca te lii ñuy bëgg a wax moo ko ko teg te fu ne dana fa dugg pour tàggoog jafe-jafe boobu te li fu mu mën a daw jëmit te yanuwaale lii nga xam ne moo ko ko tegit du dañ mukk loolu dafa war a leer pas-pas bu yàqu paaxul ci jullit pas-pas bu yàqu nag mooy nga fas lislaam ci sa xol nangu baatu seer yi accord yi ci yàlla joxe yëpp nga nangu ko nga dem bu mujj yàgg nag yooyu nga koy wàcc par benn di wàcc par benn di wàcc par benn dem ba nga xam ne sax mën naa ne téye woto ci benn loolu tur wa nga ca dese boobaa nag jafe-jafe dong ngay mën a dund ndax lislaam kenn du ko engagé di deltu gannaaw yonent bi sax daan wax ku nangoo doon jullit ba mujj nanguutu koo doon dañ koo war a rey ñaari weddi nag dafa am wedd goo xam ne yaay taxaw weddi na man gëmatuma lislaam ak wedd goo xam ne si sa jëf mooy taxaw ne gëmatul lislaam wedd jëf nag mu ëpp fi mu toll nii ci jamono ji ñu toll ba tax nag kaa bii am cause bi ñu ci dugal bokkaale moo ñu ko teg muy jël yàlla teg nele ba àgg sax ci nag maanaam nangootoo koo jaamu àgg sax ci nag lépp lu mu a tere rek lépp luñ daan moytu lépp luñ daan bañ a def léegi yooyu moom déraseetu la nag bakkaar bi nga xam ne moo gën a kawe ci bakkaar yi ndax mooy fekk yàlla mi kenn nga wutal ko moroom wala nga wutal ko ay moroom moo tax sëñ Tuubaa daan wax naan man yéemu naa ci ñi nga xam ne dañoo fekk yàlla mi nga xam ne kenn la ñu di ko def yett yàlla yaa jumlatan xat sallasu bila laalihim man lam yakun waladun lahu aw waali looloo taxoon ñu la ko daan tuumaal da koy jihaat day def nii day def ne waaye yooyu yëpp bañ ko waxee layal ne ko wax leen ne leen ngànnaay yi ngeen wax ne dama koy jël di xeex ak yéen di li ngeen wax dëgg la waaye man ngànnaay yi ma yor bukk te ngànnaay yi ngeen yaakaar man ci xam-xama ko ragal yàlla ak jaamu yàlla ci lay jihaate man loolee nag mooy li nga xam ne mooy sécuriser nit ki ci àddina waaye nit ki bu amul lu ko sécurisé bu weddee yàlla rek ci pas-pasam ci ay jëfam mooy tax muy dugg ci créer ay yàlla créer yàlla nag mooy gis doomu aadama ne yow nga def ko yàlla doxale ko si digg ak yàlla bu mu jàgg mu def ko yàlla moo waral ñii nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu xiram dellu siwaat ci réew mi ba fi ne métier lañ ko def fi mu toll nii boo xoolee internet bi wala télévision bi amul benn émission buy dem boo xam ne si ñoom sponsoré wuñ ko rajo yi it kenn mënatu koo déglu ñoom ñooy sponsor lépp lu ñu taxaw ne mën nañ koo faj amul jàngoro juñ wax ne mënuñu koo faj amul ba kii ne mënuma faj bii li ko dëgëral lay waxam kee ñëw moom boole ba kii ne mën ta faj na mën na ko faj moom it dem ba ca cat la mu génnee benn ne boobu moom mënuma koo faj te lañ ci jublu mënu ma ko faj lu dara lu dul bëgg koo dëgëral seen wax ñu ne ah, nit kii de kii de moom moom moom nit nit ku dëgg la moom kii de moom nangam waaye kiif kiif ku la ci mën a naatalal lam yor lu mu mën a wax lu wax ji rëy rëy rëy rëy bés bu ngeen jojjoo nga xeeb ko feebar yàllaa koy tege nit yàlla ko mën a faj donte joxe na sabab sax ñu di ci wakkirlu ci ñi nga xamante ne si ñooy docteur yi fi nekk ñuy jéem a dem di leen ko wan waaye lay tax ñu mën a fajat du ca docteur ba ca suñ borom la léegi nag bu nee ba médecine traditionnelle yi génn nga xam ne ci banta ki sunga fa ki bind ci ay kaatim xaatim ak ay pettaaw ak yooyu ci lañuy faje boobaa ngeen xam ne nag pas-pas baa ngay yàqu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ndax yàlla ji diituñu ko reconnaître yàlla yàlla ñuy reconnaître te yàlla ji nag buñ am na fa buñ fa àggeeg moom nag moo waral jafe-jafe yi dem mooy tax nit ki di naagu di fëggub dënnam naan man a man a man a man a ba musiba tëb na këpp ci kawam nag suturaam sépp xawi ko te du mujjee lu dul sëgg di jooy xam nga nit ki danga gis ko ñu tagga tagga tagg ba jël cërub yàlla jox fii ne jamono jii ñu toll rek mën nañ sa cee joxe ay confirmation ay firnde ci jamono ju la ji nga xam ne démocrate daanaka existitul nit ñi góor président yi ay dict ay dictateur Eh, dictateur lañuy la ñuy gouverner seenum réew di leen not noteel goo xam ne si teguñu ko fenn lu ëpp leen doole jël seen alal jël seen arme di jàpp di leen duma di tëj ci kaso bi léegi nag ñi nga xam ne ñooy ñii créé ay yàlla ñiñ këree ñooy waral ne ñooy faral di indi jëye yu bari ndax dañuy wax naan la gàllaj gi boo ko takkee doo dugg kaso nangam ji boo ko naanee doo def nangam dara du la dalal xànc gi boo ko takkee doo dee ci accident yooyu lañ lay wax te loolu bu fekkee yàlla bind ko ci yow loola munu ko fanq su ko defee nag bañ ne la doo dugg ci kaso ñu jox la ko wala ñu jox la ay bayit ne la del ko wird del nag ba nu ñi tëdd nga jóg di ko wird te yàlla di dem bay gërëm ñi nga xam ne duñ tëdd cib lal duñ tëdd cib lal xam ne dañuy nekk di bañ a nelaw léegi nag loolu nag bu ko léeralul dañuy defee ne ku jëw dul nelaw guddi rek liggéey boo mën a liggéey rek bokk nga ci di ci yàlla ya waaye ñiy jóg nag di dundal guddi gi ci ay rakkaxaa te yàlla tax ñoo ñoo tax yàlla di wax waxuñu nag sëriñ yi xaaba yi nga xam ne dañuy tëdd ba guddi di wérdal nit ngir alal wala ñi nga xam dañuy fanaane ci mooy yàlla ba bët set wala ñu ne ca football ba wala ñu ne ca baal ba ñooñu yàlla waxu leen yàlla ñi wax mooy ñi jóg di dundal guddi gi ci ay rakkaxa te di ko def ngir yàlla ñooñee nga xam ne dañoo muñ seeni nelaw ngir jëndee ko ngërëmal yàlla bu ëllëgee mu demee ci bàmmeel seen bàmmeel leer nañ ñooñee bu demee ci kanamu suñ borom seen bàmmeel dafay leer nañ nga gis ne ak jay la ci am jay gi dangay gis kook day nekk ci loola lu mu dugg mu ko ñu naan ah diir su ko defee loola moom it day jayu fenn dara la waxtu jot buy wax nga gis muy fëgg dënnam di bàkk boppam ba ma defee lee kii lii ba ma defee lee kee dangay dem ba nit ñi di la xool bëtëb suñ borom naan ah diw de ku dugg ci moom danga ci des ku dugg ci diw des ci de waaye diw moomee gis nga jaay loolee ak jaay la rek waaye bis bu àggee nag fa nga xamante ne sii nag fa la ko nit ñi doon xaar ba gàllankoor dal ko ca boobaa nag lay xam ne yàllaa ngi fi boobaa mu xam ne ay tappale mënta yor kenn mënta yor dara nit dafa am fu lu ko yàlla man loo ak fu mu ko yem loo waaye du ceegi ne yàlla da ko mën loolu lépp te man loola lépp nga jël lépp ak goredi te ñi yàlla di man loo dëgg dëgg duñ yëngu duñ wax duñ tooñ te duñ féyal seen waaye koo gis mu taxaw naan mën a mën a rek mën a waaja du waaja loola confirmation mënees na ko jox ci jamono ji toll ci sunu réew mee ci Sénégal nga xam ne jafe-jafe rek lay dund kenn mën a tuta ci teeg bakkan rawatina nag koy dox ci ak dëgg waxoon naa fi ci gannaaw ne leen lu dul yàlla rek yàlla la moom yàlla rek a mën a sàmme moo mën a aare ñii ñu def ay yàlla nga ne yéen laa yaakaar addina ak àllaaxira man damaa laa di wedd bu addina bi te bu àllaaxira ba laa gën a wedd ndax addina bi koo ci yaakaar ba pare mu yaakaar la moom dafa mënta nekk yaakaar mu nit mu xetti la ba pare li koy xetti la yëpp yow yow yaa ko koy defal yaa koy xëyal yaa koy gontal yaa koy dimbali yaa koy defal lépp ah loolu moom jàpp naa ne moom ku jàpp ne yow koo kee ngay xettali mën na laa xettali moom ña daan yett ay yàlla di ko jaay ñoo yem rek yett yàlla jëcc ci ngay xettali ko ba pare yaa ko kere ba pare wër ko di ko jaay door a mën a dunde mooy lii xew léegi kon nag ñooñu addina bi moom yàlla weer na leen ci ne yow boo leen yaakaaree yow lañ yaakaar léegi nag mu des àllaaxira koy xaare koy koy koy xaare àllaaxira ba tax mu fam teelaa jaamu yàlla te dëggalal la nga yàlla loolee bu ëllëgee moom da koy doy bu liggéey ndax moom ma nga doon tegtaloon te soññu la ci ba pare di la ci encourage loola da koy doy ab liggéey diggam ak borom ba yaakaar naa ne du tal kenn te yàlla sax dafa amul ak ñàkk fay rek toog di wut koy dox sa diggante koo xam ne si moom lépp lu mu la digal te di foo ko kee mooy ñëw def intervention loolu ci àddina la yem yàlla moo ñooñee nga xam ne yow laa yaakaar àddina ak àllaaxira ñu di la liggéey loo ko dawloo bis boo demee ba fakkatalu bañ am lanteeg buur ba mu jàpp la dugal ci kaso bii ñooñee duñ ci man ci yow dara lu war lañ lay mujj def boo waxee ñaan lu ci yoon santaane nañ ko def di wan ne dañoo jub te fekk ne dañ ci dara bu ñu waxul loolu it lañ ca man mooy yéeg ak a ñaan bu ñu leen mayee bi baax na bu ñu leen mayul ñu dem waaye leneen jëf ju leen ko mën a may amul tey ci ëpp sax buñ taxawee def intervention kenn du leen ko may ba dañuy mujj rek toog ne léegi nañu ñu nañ muñ moom moom mais nga xam ne moom nga doon ma kiirlu defe ne mooy sa yàlla ba tax nga defe ne mën na la génne ci jafe-jafe bi àddina léeg-léeg sax nag moom moomee yor mbooloo ñu jëm am lan teg yoon ñu ñëw ne ko nuus ci digg këram taraxal ko ba mu tat yenu ko yóbbu te taalibe ya ko yaakaar di ko yaakaar addina ak àllaaxira duñ mën ca moom dara def nañ ko fi budul benn di ñaar ba defaat nañ ko nii loola nag dafa am lu ko gën kennal yàlla ceeb ba nga xamee ne yaa ngi koy tal ndax yàlla bu la joxee nga am wér yuxul ko ngir loola noppal dafa la ko jox ngir jaamu ko bu la joxee nga lekk dafa bëgg boo suuree nga jaamu ko bañ a reesal saw ñam ci ak ak ak aw musiba nañ bàyyi fa dënn mi sëñ tubaa ñëpp xam nañ ne am na may yàlla waaye mësta bàkkoo dara ba ko tubaab yi woo ne ko dañ lay yóbbu it taxawul ne déedéet waaye xamuñu luñ bëgg ak bañ dafa ànd ak ñoom rek wakkilu ci yàlla waaye la ko jiitu mësta bàkku mësta fa gum dënn te bu ko neexoon def ko waaye bëggoon jàngale mu leer mi yonente bi doon jàngale mu yeesalaat ko ci nit ñi moo taxoon mu def loolu kon ku mën a làqatu ci sëñ Tuubaa kër sëñ Tuubaa foofu mën a làqatu juddu goo mën a rëyal ak duufal it yàgg yàgg jafe-jafe dana la dikkal da ngay dem sax boobu boo fekkee yeex nga yeex nga amum na nit ñi au lieu que ñu xam ñu ñu ñu ñu sant yàlla wala ñu delloo ci yàlla danaka yow dañ la koy bàkkee diw nanga ma tax boobaak léegi dimul kasa diw lu ne nga ko defee nag jaay googee mooy tax foo toog di wax foo toog di wax te wax jël daanaka daray tawhid du ca nekk daray tawhid du ca nekk anamu tey ñooñu doon wax kenn du leen jàpp kenn du leen jàpp tey bañ leen jàppee dugal ci kaso bi boole ko humilier leen toroxal leen toroxal taataange ju métti ju àddina sépp teg bët ana lañ leen doon ragalee ko wax luñ man mënuñu ci dul naan nee nañ duñ lekk ak duñ naan ak duñ def loo xam si lislaam da koo tere loola bañ a bàkku te sax ci jub da koo gën nañ sax ci jub fi may daanale nag muy doomi sëñ Tuubaa du waxantu mukk mukk mukk te lu mu wax yàlla rus ko ci ndax lañ man ci jaamu yàlla def nañ ko lañ man lépp ci lu baax def nañ def nañ ko te mosuñoo jege bon bon mosuñoo encouragé ku bon ñooñu yàlla kese lañ woon dañoo taw xitoon yàlla moo tax seenu samp nag lépp luñ samp ñaare ñun taalibe yi nañ ci def ndànk lu ñu àddina jay jay jay jay jay jay orma jana fay des xam na koo xam ne si kat yàlla dafa ànd ak moom ba lépp loo ko def au lieu que moom moom ngay ko ci xalaat yàllaay ñëw defal defal ko intervention moo tax sëñ wax naan biraasu biraasu man baarisu nii biraasu man ku léewtoog man yàlla nga léewtool déggin woowu la laaj sëriñ Saaliwu Mbàkke radiyallahu taala anhu ñëpp xam nañ ne addina moom mosu koo fàggul te lu mu am lu nekk jox na ko yàlla ci alalam mag ci jëmmam ak ci jëfam ak ci njabootam loolu képp teg nañ ci seen bët ba addina moom ku ko doon xool di ci xool sëñ Saliou da nga xam ne sëñ Saliou mii addina taxu koo jóg lépp nag da ko jël terale ko suñ borom ndax suñ borom da koo jox loone ne xaaw mu jël ko ah toroxloo ko ci kanamu suñ borom delloowaat ko ko ndax xam na ne addina bi dara du fe dara kooka nag lépp lu mu samp xam nga ne dëgg lay doon te yàllaay tax. man euh, kuréel gii ñuy wax safinatu amaan bi koy samp samp ko woon pour nit pour not nit ñi da koo sampoon pour dolli kaaraangeeg Touba ngir ormay Touba mën na taxaw te ormay Touba mooy orla ormal islam loola nag mag ma ko xalaat ba def ceeg ñaan ba jiital ceeg ña muy jiital yaakaar naa otoraay buy daw la rek ci kaw raay képp koo xam ne nii daje na ak yow yaa yéeg ci yoonam bu soobee yàlla. bu jàllee moom dee si sëg dund dana jeex ci kaw suuf moo tax nit ñi nañuy teey samp mag kenn du ko sempi te nun gis nañ ne jamono ji kuréel ga amatul waaye noonu sabab ba rek moo tax nuy wax waaye la ko fa jële moom daanaka amuñ ci soxla ña nga xam ne porté woon nañ ci ab combat di leen xeexal di sas di leen def lu ne bañ jàppoon leen indil leen ay problème ba nga xamante ne si jamono joojee jabulise nañ leen bañ dakkal na woon liggéey bi te mën naa ne tasug safinatu amaan daanaka ca coow loolu la tàmbalee waaye ka ko sosoon moom ka di sosoon coow la moom gis nga ne suñu borom lam ca dogal foofu moom duutu fi nekk ci àddina bay taxaw di yàqal kenn moo tax saxaar moom ci Ibrahima lay daw te kenn du ko kar gis nga ne jëmm yi nga xam ne tey jii moom lañ doon dajale di ko defal ay ñaan ay dog te la ko jiitu lépp buñ koy door a jàpp ay menaces nga doon dégg ci kaw suuf danañ ko génneeg ki waa kër diw la dañ koo xamul ak dañ koy doon mujj wuñ lu dul dajaloo di ñaan xam ne nag yàlla doo nga nekk moom moom yii ñu jàpp bis ñëw na fii safinatu amaan bii mu yëkkate ci ay kàddu jam leen ay baaraami tuuma jam yu méttee méttee yoo xam ne ci képp ku ko déggoon keroog te bàyyi woon ca xel naqari na wax ndax naqari ga mooy li ko sëñ Saaliwu sosoon te sàmmi ko yoon wi taxoon mu sos ko waaye moom nag addina jay na ko mu dem nag di ca wax waxin woo xam ne sii kat mel na ne doy na waar gis nga moom tamit natt bi nga xamante ne si suñ borom teg na ko ci gis nga ki taxawoon ne dañ ko fee war a jëlee kooku moom dem na ba mënatu ta wax lu baax moom mooy ki fi waxoon te bi sallallahu alayhi wasallam la mu wax rek naan gënuma ndey gënuma baay gis nga ko moom it mas naa toog képp te ne tudd leen yëkkati ci kàddu yoo xam ne si kàddu yi kàddu yi ko soxar la waaye ba mu ko waxee ba nëgëni si ba kuréel ga yàlla dogal sëñ Muntaxa mu baax mii bañ coow ak pression boo xam ne si toujours nit ñaa ngi ñëw ci moom di ko di di ko ko teg mu daal dina koy dakkandelle ci dakken dakke da dakkal boo am ay teggin boo xam ne si ka nga xam ne moo ko jiite woon xam na ne lii moo tax sëñ bi dakkal ko waaye sëñ bi moom ñëwul pour dindi lu fi sëñ Saliou dal ndax loolu wax ko sax yàq la ndax moom ñëpp gis nañ taxawaayam waaye ña porté woon combat ba moom gis nga tey leen gàllankoor ñii génn nañ àddina ñii ngi ci kasa bi ñii ngi ci ay xat-xat lu ñu génn duggat ci leneen loola nag dafa amoon lu gën ormal kilifa kon ñi ngi taxaw foofu di leen jox di daje ci beneen numéro jërë ngeen